للعبد والأمل المستقبل والوالد استمدادا لوالده واستمرارا لوجوده ولذا قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا فوا أنفسكم وأهلكم نار وقودها الناس والحجارة سورة التقريم آية 6 فكيف تكون هذه وقاية إنها تكون برعاية المسؤولية وحسن تربية الأولاد عملا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى سائل كل راع أما اشتاقه حفظا أو ضيع حتى يسأل الرجل عن أهله رواه أحمد والمسؤولية تقتضي أن يفكر الرجل في ولده وفي مستقبل هذا الولد حتى قبل أن يولد وهو يختار لولده أما ذات الدين حتى تنشئه على السلاق والتقوى لأن الأب قدوة والأم مدرسة ويقول الشاعر أحمد شوقي al ummu madrasatun ida ahdattaha ahdatta shaaban tayyiban al araqi wa yaqulu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tunkahu al maau li arba li jamaliha wa li maaliha wa li xasabiha wa li diiniha fa alayka bi zaati diin wa zaatu diin tuhsinu bil waajibaati zawjiya wa bi tarbiyati awlaadiha fa yabda al waladu xayaatuhu صفحة بيداء نقية ثم يمشى على الأخلاق التي تسد في البيت فإذا كان الوالد والد صالحا نقيا طاهرا يكون الولد كذلك عباد الله وذات الدين وإذا كانت الوالدة صالحة عاقلة فاصلة yakunu alwaladu saalixan faadilan walida yaqulu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kullu mawlud yuladu ala fatra fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaanihi fa ala alwalid an yaxtaar li ibnihi isman jamilan misla sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibaadallah fa ala alwalid an yaxtaar أن يعدل بين أولاده في العطية وفي المؤاملات فكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم فعلى الوالد أن يحسن الإنفاق على أولاده فعلى الوالد أن يكون قدرة طيبة لأولاده فلا يعلمهم الكذب والقيام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم الله أكبر والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا mbokki jullit yi ñu ngi ànd di leen ndokkeel ci bés bi waaye itam li ci jiitu ñu ngi leen di baalu àq di ñaan borom bi tabaraka wa taala yàlla nañu yàlla nangu sunu jaamu yàlla rawatina ci bés bi rawatina ci fukki fan yi nga xamante ne lañu ñu weesu fa tabarakallah lépp ndëg nekk yiw waaye tey sujet bi dañu koy indi ci li nga xamante ne moom lañuy wax jenes bi maanaam ndaw ñi ndaw nekk loo xamante ni lu sensible fa inna shabab uddatul watan fa hum abna al yawm bu ñu seetee ñu ne jeunesse bi ñépp xam nañ ne moom mooy aveniru dëkk bi nangu nañu ko waaye nag ban jeunesse am na benn kilifa bu doon wax naa jeunesse bi waaye li mu ci teg rafetul baaxul neexul neexul a dégg maanaam ci ay kàddu ne jeunesse tey bi jenes bu doy waar la waaye nag bu ñu bëggee am jeunesse boo xamante ne bu baax la dañuy nangu tànn leen yaay yu baax foofu la ñuy commencé te nag foofu nag mooy li nga xamante ne moom mooy lii gën loolu moo tax ñuy wax ñu ne bu fekkente ne wax nañ ne jeunesse bi moom mooy avenir yu ëllëg ñu war koo mën a gëm ngir bu dee bàyyi ak sunu compagnie gi kenn ku ci nekk boo duggee ci jàkka ji walla boo duggee ci jullukaay bi sa waajur ngay jëkk a xalaat ne am na jamono joo xamante ne sama waajur doon na ma tette di ma dugal fii ci place bi tey nag man may tette sama bopp ànd ak sama njaboot loolu rek jar na sant yàlla waaye nag jeunesse bi li ñu leen di sant mooy du jeunesse dañ leen war a exploiter exploiter leen mooy lan bu dee xeex ñu ne jeunesse bi génn leen ngeen xeex bu dee supporter di def naka sadul noonu ngeen na jeunesse bi gën na leen bu fekkente ne éducation bi la da ngay taxaw jékki-jékki ñu ne la les élèves les enfants garde leen xale yi ci fi nga xamante ne mooy si kër donc kon ñu ngi lor njaboot li waaye tànn leen yaay ju baax moo am solo nan lañuy tànn yaay ju baax bu ñu seetee si mag ñi du jum benn yoon xale yi ñu war leen a tànnal ay yaay yu baax yaay yoo xamante ne yaay yu yëw yonent bi wax mu ne boy tànn jabar mu ne tànn ka si ñeenti critères yi waaye nag am na bi mu mujjeel ban mujjeel mu ne booy tànn jabar tànn ka ci alal baax na booy tànn jabar tànn ka ci rafetaayam baax na booy tànn jabar tànn ka ci askan baax na mu ne waaye booy tànn jabar tànne ko ci diineem mu ne boobu de mooy bi ma gënal taar dafay jeex alal dafay jeex xeet dafay jeex waaye li dul jeex mooy diine joo xamante ne diine ju sax boo xamante ne ëllëg mën na la mën na la sàmmal sa njaboot te mën na la jàppale si sa kër fa tabarakallah c'est pas pour rien que ñu ñu ñuy éduquer si ci doom yu baax loolu moo tax tubaab yi di wax naan boo bëggee am société bu baax boo bëggee am pays bu baax mu ne na nga sàmm li nga xamante ne moom mooy jeunesse bi tey jeunesse bi dañu leen soxla parce que ñoom ñooy avenir u ëllëg waaye ndëkk bu ñu delloo ci ki nga xamante ne mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Omar taxawoon na di wax ñu nekk Omar yow yaay amirul mu'minin tey yow la fi yàlla bàyyi en tant que président Omar di dox di dox ba ñëw fekk benn xale bu toog ak yaayam waaye bi ñu toogee ñu ngi toog di waxtaan Omar ñëw ba ci kër gi laxatu toog di déglu yaay ab doom ñu ngi waxtaan mu ne ko yaay soow mii yaa ngi koy nger maanaam yaa ngi si yokk ndox lan moo ko waral yaay mu ne ko doom li ñu am bariwul li ñu am dafa néew te bu ñu ko jaayee li ñu fiy am du bari waaye doom ji ne ko yaay dañu déggoon ci yonent bi di wax ne ne man rachana fa laysa minna képp koo xamante ne trouché nga bokkoo sama xeet te yàll yaay li ngay def nii baaxul omar al daf ko doon tere mu ne ko nangu naa ko waaye omar nekku fi omar mi nga tëdd di nelaw omar fii mu làqatu woon génn bi mu génnee ñëw di waxtaan ak askan wi mu ne leen kër gële ku fa jël jabar di am doom ju baax ñu ne ko lan moo tax mu ne ko dama dégg doom buy raisonné yaayam nakaan trousé baaxul yaay bul def lii boo defee lii di nga ëlbate ko doo ànd ak bi te yonente bi moo digle ne moytu leen trousé trousé baaxul mu ëlbatiku sant yàlla omar ne leen naa ak nu mu mën a demee rek kër gële kuy tànn jabar rek na nga si tànn jabar waaye ndëkk ndeysaan bu fekkente ne yàlla sori nañu ci li ñuy wax bu fekkee yonent bi sori nañu si li ñu wax nañu jël mag ñi nañu jël mag ñi dinaa ko faral di wax ne muy Seydi Hadji Malick wala muy Serigne Touba ak ah, ku ñu yaakaar ku ne dugaluñ ñu ci lislaam man day sama papa ma dugal ci lislaam te imam Pape Lamine papa ma ko dugal ci lislaam wala boog imam Papa Laay papam moo ko dugal ci lislaam waaye ndek yàlla bu ñu dénkee mag ñu baax rafetal nañ sunu diine rafetal nañ ko de te dañu ko nangu dëkk kenn ku ci nekk yaa ngi tàpp si dënn naam suwaaka ma nekk mbàkke mbàkke wala ma nekk tijaan Seydi Hadji Malick mu ne loolu ndëkk jar na àddina ak li si biir ñooñu ndëkk lañ def tey référence ñu di gàggante waaye di rafetal ak ñun nañu leen xool ku ne Seydi Hadji Malick ne soxna Rokhaya Njaay soxna Rokhaya Njaay moom la Seydi Hadji Malick jëloon mu nekk ci wetam soxna Roxaya Njaay daana wax mu ne tukkulóor bu baax bi su ma ko amoon duma wax dara waaye nag Seydi Hadji Malick amul te nangu na ko amul woon te nangu woon na ko mu nekk soxna Roxaya Njaay dama la bëgg a labat dama la bëgg jël comme jabar waaye li ma am bariwul li ma man bariwul waaye nag yàlla boo ma ko xeebal soxna roxee njaay loolu moo tax kuy takk jabar li ma waxoon utal yaay ju baax soxna roxee njaay ñëw ñépp di wax naan kii lu muy doyee Seydi Hadji Malick lu mu koy doyee koo xamante ne amul alal amul dara soxna roxee njaay mu ne lii nekk ci moom moo ma saxal moom ma intéressé mu nekk lu la intéressé mu ne xam-xam bi ak ragal yàllaam mu ne ko nangul naa la ko mu nekk ñi ñu ngiy wax na amuloo njëkkee li ñu koy faral di wax amuloo njëkkee xam nga kooku xas na soxna Roxee Njaay waaye mu muñ rek waaye soxna Roxee Njaay ne ko Seydi Haaji Malick loo am may ñu tuuti soxna Roxee Njaay loo am mu ne ko man li may bëgg rek mooy yàlla rek moo ma intéressé mu ne ko waaw loolu nga ma wan waaye ñaata ngay laaj mu ne ko loo ma jox baax na Seydi Hadji Malick ak ak mandoom ak ak jubam ak bañ a tas yaakaar mu ne ko am naa ñetti téeméer mu ne ko ñetti téeméer nga am Seydi Hadji Malick nangul naa la ko mu ne ko waaye ñetti téeméer yi dama la koy delloo mu ne ko noo ma koy dol delloo lii man maa ko jël mu neex ma lool maa ko jël gañe ka honnêtement waaye ndëg duma la ko nangul benn yoon soxna Roxee jaay na ko Seydi Hajji mu ne ko téeméer bi dama la koy jox dama la koy delloo nga jënd si ay téeree yooyu jànge parce que kilifa gu nekk war na am bibliothèque am boo xamante ne bu jaaxlee foofu lay defee recherche mu ne ko nangul naa la ko téeméer bi mu ne ko beneen téeméer bi mu ne ko beneen téeméer bi li ma si soxla mooy da nga war a am ay yére parce que kilifa gu nekk dañu koy yaakaara yenn saay ci solul jëlal téeméer bi nga di ko soloo mu ne ko beneen téeméer bi nag mu ne ko beneen téeméer bi dama la koy ñaan nga ñaanal ma si yàlla barkeel yàlla barkeel doom bu ma ci am rek yàlla barkeel ko yàlla jox ko sëriñ Babacar fa tabarakallah bi Seydi Hadji Malick di gàddaay sëriñ Babacar moom moo taxawoon naa ëmb bi ci gën a mag man Babacar man maa koy yenn allahu akbar ban ndaw bu nangul waajuram kooku mooy Seydi Hadji Malick waaye Seydi Hadji Malick moo ñu dénk lan la ñu dénk dénk nañu lu bari si vous me permettez de bavarder un peu ci kàddu yi ki nga xamante ne mooy Seydi Hadji Malick mu waxaax la jeunesse mu dénk leen lu bari mu dénk leen loo xamante ne ndaw ñi ñu ngi koy caaxaane ndaw yi ñu ngi koy fowe mooy lan jeunesse boo xamante ne dañuy wax rek jeunesse buy coow rek dem na ba xamante ne mag ñi sax dañuy coow Seydi Hadji Malick di wax lu mu wax waaye nag comme dëkk bi dañu ko bokk ñu bari ñu fas ne wax di ko wax ci tubaab ñépp man koo dégg fa tabarakallah Il les exhorte également à ne pas être orgueilleux et vaniteux, car nul ne sait ce qu'il adviendra de ses actions. Il encourage également la jeunesse à s'abstenir, pour lui l'abstinence de la débauche et de la gourmandise, préserver les deux coups les plus précieux de l'homme, la bouche et le sexe. Mounemonde rappelle également à ne jamais être paresseux pour retourner à Dieu. Le jeune doit toujours se rappeler que Dieu est Il insiste aussi sur la question des mauvaises fréquentations. Le jeune ne doit pas s'entourer de frimeurs et de camarades. Donc le seul but est la jouissance sans lendemain. Il doit choisir aussi. Il doit savoir des amis. valeureux, vélants, sobres et lucides qui peuvent leur apprendre. la jeunesse, c'est toujours le même Maodo qui parle. Mouné la paresse. La paresse est un vice que Maodo n'aime pas chez la jeunesse. Il considère la paresse comme une gaffe majeure dans le développement du jeune. Mouné pour lui, le jeune ne doit pas être bavard de futile. Il doit travailler puisqu'il ne parle. Il doit aussi respecter, concentrer sur ses objectifs Il compare le bavard à un fou qui mérite d'être qui à l'ordre. Il insiste aussi que les jeunes gagnent leur vie dignement. Dieu a fait métiers et a dit aux fils d'Adam d'en pratiquer pour subvenir à leurs besoins. li mu ci tëje mu ne jeunesse boo xamante ne dañuy wax bari li ñuy wax jël crédit dugal ci sa portable ëlbëtëku connexionné connexionné wu di saaga yaayu pap yaayu jàmbur ak bàyyi jàmbur ban jeunesse jeunesse boo xamante ne dañuy taxaw di wax waaye ndëkk mu ngi leen di wax ne ne il faut gagner unique honnêtement li nga xamante ne moom ngeen bëgg mënumaa admettre mënumaa admettre ñu embauché liggéey je donne un exemple comme le maire de Wakam jël ay xale ñuy liggéey kenn ku ci nekk di def li la neex boo demee ci marché bi ne la gagneel xaalis parce que li c'est pas l'argent du maire waaye c'est l'argent du pays nga war a ëlbatiku xaalis bi nga connecté ci maire bi wala ci boutique yi wala partout à Wakam nga jël ko dugal ko sa poche nga jëf ne tu as trahi le maire mais tu as trahi la nation il faut savoir gagner de l'argent honnêtement Senghor bu nit daa ñëw daa ko seet seet ci kàddu Jibril Gueye bi ko waa benn waay ñëwee seeti ko mu nekk ko dama bëgg a dugg ci politique waaye loo ñuy dénk mu nekk ko ah ñun bu ñu si daan tollu Senghor boo ko daan laaj xaalis daf na la ça c'est l'argent du pays lii xaalisu askan wi la lu askan wi moom dëkk benn doomu aadama faskee na koo lekk du baax loo ragal yàlla ragal yàlla ñi la entouré bu ñu la jàppale woon si ragal yàlla du baax waaye nag mi ngi nii fii may terminé fii may terminé mooy gis nañ ne jeunesse bi ñu ngiy dem waaye fan la dem ne dañuy daani ji seen doole ne dañuy dem daal di seen dooleel lu leen fi naxari mooy benn rek lenn rek la tekkiwuma man duma ko analyser comme ni ko ñi ñi di analyser dëkk bee naxari moo tax ñu dem waaye déedéet y a des yoo xamante ne yaay moo ko def baay moo ko def su ma amul kenn du ma faale su ma amul kenn du ma toppatoo su ma amul dañuy lekk bàyyi ma su ma amul kenn duma tudd dañ may bàyyi rek ma dem si jàkka ji dem dama xa ñëw su ma tardee lekk fekk lekk nañ ba noppi man dama war a gàddaay war a dem ak anyway ak nu mu la jaral di ko jéem a daf loolu baaxul papa ak yaay bu ñu demee bay diviser njaboot gi loolu dootul amati sens te loolu baaxul mbokk yi ku ci am doom bu ko gënaat le te ñi ñuy gënaat le ñoom ñoo fi gën a bon jigéen joo xamante ne dafay jaay boppam heure bu mu ñëw bu ne indi wàlle la hamburger wala saucisson nga lekk ba suur nakaan mbaa sonnuloo wala mbaa nangamuloo waaye jëlal caabi ji nga dem loolu ku koy wax doom yaa ngi koy encouragé waaye nag foo gisee ku baax ku nekk gise nga fa ku bon fii may terminer di jox ñu ñaan dafa am benn doom bu ñëwoon ci yaayam muy def classe de CM1 walla cm mu ne ko yaay yaay yaay yaay looy jooy mu ne ko man li may jooy mooy sa papa génn na àddina amul ku yor njaboot gi man doom loolu lay jooy ngir doom askan wi du ñu dimbali lu dul ku am te ñun amuñu te baay bàyyiwu fi dara te yaa ngi nii di jàng nekk xale bu tuuti loolu moo ma jooy lool xale bi ëlbëtëku ne ko yaay dinaa la feral say rangañ yaay dinaa la feral say rangañ yaay ji ne doom amaguloo noo may farale samay rangañ mu ne ko yaay je vais redoubler d'efforts pour jàng yaay je vais redoubler d'efforts pour liggéey pour man laa teral waaye xam nga yaay ji lan la ko wax ne ko doom lii di feral samay rangañ comme baay dem na yaaya fi nekk nan ngay ferale samay rangañ mu ne ko da ngay góorgóorlu mu ne bu dee liggéey na liggéey bu baax pour teral ma pour sagal ma pour nit ñi man maa jox sama gët parce que su ma amul kenn du ma torop doom ji commencé jooy mu nekk nag kàddu yi ma sama yaay waxoon kàddu yooyu laa ëlbatiku mu di ma redoubler d'effort pour ma xam ne àddina bi daal ci doom la doom bi yaay kon doom mi ngi ëlbatiku di fomp naka yaay fompal say rangañ man suma amee yow lay jëkk a teral te kenn dutu la soxlaati dara kon fala doom ju baax day góorgóorlu day jàng jeunesse bi dama leen di pousser à ku si war a jàng na nga jàng jeunesse bi dama leen di pousser à ku war a liggéey na nga liggéey waaye itam na ko teg ci yoon na nga gagné dignement si vous me permettez de remercier le maire de Wakam en tant que autorité numéro un di sunu kilifa di maire bu baax ñu ñaanal ko yàlla na ko yàlla yokk wërsëgam yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla aar ñu remercier aussi itam la gendarmerie qui sont toujours présents ñu remercier leen ci turu askanu Wakam lay waxee waaye waxuma personnellement man si sama bopp waaye askanu Wakaam ñoo jàkkaarloo di remercier aussi le la télévision les télévisions yi nga xamante ne ñoom ñoo ñu accompagner ba ñu mën a jottali li nga xamante ne moom mooy suñu julli fa la ñu ngi leen di souhaiter fête ju neex fête ju baax ngalawaay bu xale yi jooy ngalawaay na xale yi kontaan. waaye ngelaw waaye képp koo xamante ne war nga koo sargal nga sargal ko certainement y a beaucoup de gens yoo xamante ne dimbali nañ doom aadama yi waaye ñu ngi leen di gërëm di leen sant Seydi Hadji Malick waaye nag li ñu leen di wax mooy nañ leen ànd nekk benn waay nañ leen ànd nekk benn Seydi Hadji Malick ban année la judd le 18 février 1855 waaye ba le juin 1900 le 27 juin 1922 ci la génn àddina waaye bi muy génn àddina ki mu mujje oo mooy Serigne Abdou ne leen jàppante leen du ñàkk maa ngi dem waaye bëgg naa sama ginnaaw jàmm am fi ànd leen nekk leen benn man fi mu nekk maa ngi waajal sama bopp kon waa Wakaam fii mu ne li ñu toll nii mooy ku waxul jàmm ku waxul dëgg wax fen te jàmm ji nag mooy nañu leen ànd nekk benn ngallaawaay tey boo ko seetee tabaski ñi fi dëkkul ñu baal ma ci terme bi ñi fi dëkkul dem nañ kon ñun ñi fi dëkk nañ leen rafetal suñu jotaay mag ñi daan nañ wax toggal nañ leen waaye ngallaawaay na lekk gi lekk goo xamante ne lekk bu rafet. bismillahi rahmani